asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di leen saa ñu jàkkaaroo yéen mbégte ak contentement la ñuy seen émission c'est Simon comme ni ñu koy defee seen Dakar Net point tey nag ñu ngi nii biir soppilim seen émission c'est Simon damay dugg rek benn boutique wala benn atelier rek ñu waxtaanee si loo xam ne defe naa ni moo lëmbe ñëpp sëy yu bëri ñu ngi tas seen yi bari ñu ngi yëngatu ah mu nekk wàllum euh, góor yi xam ne dañuy teel a ñibbi seen seen jabar yi jongewuñu wala seen jabar yi mënuñ ci ñoom dara góor yoo xam ne tam dañuy ñibbi seen kër yi xam ne dañoo tàng chaîne dañoo naqari deret nan la ñuy toppatoowee seen jëkkër ak lan mooy solution bi ci biir loolu lañuy ànd ak léegi léegi si dakarnet point com. Euh, dañoo toll jamono joo xam ne tey jii ñëpp dañoo war a seen kër yi. Euh, am na ñoo xam ne nag seen sëy dina commencé dinañ si neex am ñoo xam ne seen xëy dina naqari parce que noonu la nit àdduna demee day neex wala mu naqari am ñoo xam ne seen sëy fi jaaree baax ba faw ñoo xam ne seen sëy fi jaaree bon parce que lu koy waral mooy am ñoo xam ne tey jii buñ gënoon ci biti la ñu am jàmm am ñoo xam ne buñ duggee seen kër jàmm jeex na léegi bu nekkee nag ñooñu dañoo war dem seen kër war ko causer vingt heures jëm kii coow li gën a bëri parce que daanuñ daanuñ kii nuñ ñu koy mën a waxee sax ça veut dire Euh, diggante ñoom ñaar daan woon daa doon ñagas ba waa ji moom pour mu pour mu am lu ko neex foog mu génn léegi mu am di ko am ci biir kër gi noo coow rekk lay indi su ma lu ma gis mooy sëy yi bëri bari bëri dina yëngu ndax vingt heures ba huit heures nga war ko huit nga war ko toog sa kër ba kii ak say waaju kër ah franchement day métti. mais est-ce que góor yi ñoo war a xoolaat seen comportement en waaw d'accord góor ñi c'est la plupart mooy jigéen ñi am ñu xam ne dañoo mel seen jëkkër yi jàmm buñ duggee si kër seen jàmm day jeex moo tax yenn saa dañuy génn uti benn xam nga ku leen wéttali mun a am jàmm foofu mais buñ duggee seen kër jàmm jeex na mais ci biir ci biir nii soxna ñoo war a xool seen toogaay ak ni ñu war a doxalee ak seen jëkkër ba coow di mun a am ñu mun a am ci ñu mun ci am jàmm daal. mais am na yenn góor yoo xam ne tamit boo leen joxee àddunaay di ci biir dañoo doyluwul dañoo bëgg a jigéen. waaw ñooñu am nit ku nekk ak ñu la yàlla bindee am ñoo xam ne tey ji ñoom leen ñoom mooy mënuñ yem ci benn jigéen dañoo am ñoo xam ne moom feebar leen am moo tax nag bon yàlla moom bon nii la dundee ay nit am na ji góor ñoo xam ne man gis naa ñoo xam ne tey seen sëy tey dafa gën a dëgër am ñoo xam ne nag ñoom mu munuñ toog seen kër ak seen jabar parce que wax ji mooy peut-être dama foog ne mbëggeel bi moo des wala wala wala dañoo doyal ci sëy bi jënt pas mais ñoom seen kër munuñ bugguñ fa dara non mais am na góor yoo xam ne tamit dañoo compliqué comprends nga boo leen doon jox adnaay ci biir soxlawuñ ko am na ñoo xam ne dañoo su dañoo bëgg dañuy bëgg di jàdd di xool beneen gel di jàdd di wàcc fii di jàdd di wàcc fële di doxaan fii di doxaan gauche alors seen jabar pourtant rafet nañ mun nañ leen jox lépp loo xam ne mat nañ ko mais dañoo doyluwul yaakaaroon nañ tam doylu si nit lay nekk ria naa la benn affaire gi nga Sénégal jamono ji toll nii Euh, jamono ñu toll nii luñ mën a wax mooy euh, euh, lan laa la mën a expliquer am na góor ñoo xam ne tey jii mënuñ yem ci benn jigéen te mënuñ takk benn jigéen am ñoo xam ne li koy waral lu bëri mooy dañuy sëñ sax takk benn jabar mais mënuñ ko état bu ñu demee nag ba ca biir foog ñu gën di doxaat ree am xam ne loolu mooy seen vice vice la mu mënuñ yem ci benn jigéen am ñoo xam ne góor yoo xam ne yooyu la yàlla bindee. voilà dañuy takk jabar parce que ñëpp ngi takk jabar mais mënuñu yem ci benn jigéen. mais am na jigéen yoo xam ne tamit euh, mënuñu toppatoo seen jëkkër am fay. waaw loolu am na am na jigéen ñoo xam ne tey jii ñoom un deux ñu xuloo nga jigéen góor dafa nekk loo xam ne tey jii nga bu liggéey ba wàcc am na noo war a wax ak moom góor góor la rek da day am yëg-yëg am noo xam ne boo koy wax moom nii nii di ko kii ak moom lu mu meer mer mer day wàcc mais am na nooy wax sa jëkkër da nga koy gën a yokk nit wàccee liggéey ba sonn wàcc ñëw ci kër lu mu dee war nga ko mun a def dalal ko defal ko am na koy def ak say feem ku góor gi dootu xool leneen. mais dajaloo bi instant yi ak kër yi te am na ñoo xam ne seen kër yi euh, dafa bëri nit. ñu nga tey jii affaire yi nga confinement bi ñuy wax nii am na kër yoo xam ne kër famille la kër yu mag lay doon. kër mhm. gu mag lay doon. Euh, day bëri ay xale bëri ay nii ak naam yàlla mooy musal nit ñi nga man corona bi lu ma ci mën a wax mooy nen def lu ñu lu ñu wax le médecin yi war a def après yàlla sàmm parce que matuwaay yu tax ñu mun a téye feebar bi nii pour man Sénégal yegguñ ci matuwaay yooyu noonu parce que amaguñ sax kii boobu noonu yaaw man damay jékki-jékki rek nuyu nit te du ma ko tey suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ aada la da nit te ko tey Sénégal ñoo demee noonu moo tax dañ naan feebar bi man lu may gës mooy nañu yàlla sàmm ndax feer boo xam ne la du feer boo xam ne tey jii nii nii nii ak lu luñ munti def ndax yàlla rek moo ci mën a tàmm. maman ñu maa ngi leen di fay di leen ziar. yaa ngi ziar. waaw alhamdulilah sant bu baax. tey ñu doon waxtaanee si teel a wàcc bi ak couvre bi avant couple yi euh, balaa ngay gis sa jëkkër mu guddi torop am na ñoo xam ne seen jëkkër yi dañuy wàcc di jàdd mais instant yi noo gisee couple yi. waa instant yi de ni ma ko gisee moom wax dëgg yàlla vraiment lépp jàmm lépp jàmm parce que dinañ toog ci kër yi ba 9h le matin xëy 14h ñu wàcc añ nekk en famille dem sieste 17h ñu wàcc toog en famille waxtaan te parce que mi ngi permettre ñi xam lu bari si njaboot gi xam ci lu bari ci kër gi xam yaay yi ni ñu doon nekkee njaboot yi daal te en même temps tamit comme dañu daan guddee wàcc temps yi mi ngi leen di permettre ñuy profiter di di noppal ku baax daal. gën a xamanteeg njaboot ko gën a duggante daal comme yaay yi ñooy des ci kër yi fi ñu toll nii léegi nag papa yi tamit ñu ngi xaw di participer tuuti noo xam li xew ci kër yi. waaw ci am na benn maman boo xam ne moom métti fa mais am na maman boo xam ne baax na ci parent de famille père de famille daal ak mère de famille waaw waaw. jigéen yoo xam ne seen jëkkër bu ñu wàccee ba ñu toppatoo leen histoire la ñuy njëkk indi. waa sama sëba bi fii sama greffage bi nii est tamit loolu moo tax yenn xale góor yi di daw seen kër. waaw loolu la nag xam nga góor ñi moom noo dikkee rek ñu dikkee ko su ñu demee liggéey xamoo lu fa nekk xamoo ban tension moo fa am ak pression ñu ñëwaat ci kër gi bëgg am kon jàmm du mën a am parce que nit ki moom pour man bu demee liggéey ba ñëw na am jàmm am salaam nga taajal ko mu lekk taajal ko mu naan toppatoo sa jëkkër soo gisee tuuti changement nga bàyyi ko mu kal mu laaj ko qu'est-ce qui ne va pas bu nee la du yow nga xam ne kon ci liggéeykaay bi wala am na problème feneen mais nekku ci biir kër gi daal parce que àdduna noonu la mais du ne birib rek. nga ne acca teel rek nga ne damm na saa yoo koy def rek doo jóg si problème daal waaw te tamit nit bu demee liggéey ba ñëw ak malgré tension bu mu mën a indi yow muy jigéen dalal rek parce que li ñuy wax ne patt dafa faj lépp ak nu mu mën a mel yow rek nga dal su yàggee moom dana revenir sur te daal xam ne moom moo nekkul ci yoon loolu la rek. mais am na góor yoo xam ne tamit euh, dañuy liggéey seen journée du neex bu ñu ñëwee et ñu toog. xamoo si kër gi ku jigéen ki lu mu daj tey ci kër gi ñu ñëw indil ko histoire est-ce que tamit yenn yi tamit du yi waaw am na loo xam ne moom du logique góor ñi moom loo ci wax rek bàyyi nga ci lu bari mais tout le temps rek yow yaay tane am na ñoo xam ne moom bu ñu bëggul toog ci kër gi dara mënu leen tax toog ci kër gi dañuy mel ni dafa am leen di mat kon nag jàmm du fa mën a nekk mais ak confinement bi pression boobu mel ni yow yaa leen ko teg te yow tegoo leen ko donc de ce fait que yow yaay daw rek yow yaay daw rek su fi méttee rek yow nga génn foofu su ma leer na suñ duggee ci néeg bi yaa problème ma génn toog ca saal ba ca njaboot gi loolu la rek. waa kese man daal loolu laa ci gis man parce que àdduna dara yàggul mais lii tamit nattu yàlla la boo xamante ne mu jàngat ju bëri daal mi ngi ci jàngat bu bëri mi ngi ci doomu aadama yi parce que yàlla li mu def nii fépp nag ñëpp tëju nekk seen biir kër yàlla wane na ne lii mooy dëgg te dëgg mooy dëgg daal mooy kese mooy yàlla te lii moo fi ne jub ak dëgg te lii mooy dëgg dëgg mooy dëgg te foog naa ne war nañ cee mën a jàngat lu bëree bare bare bare sëñ bi ñu euh, lay fay bu baax ça va ñu ngi si jàmm macha allah. Euh, mu nekk loo xam ne instant yi moo lëmbee dëkk bi mu nekk euh, confinement bi góor yi dañuy teel a wàcc teel a ñibbi seen kër instant yi ñu bari gis nañ que yenn sëy yi ñu ngi yëngatu parce que ñu loolu. waaw boo gisee loolu yëpp euh, jamono fu mu toll la quoi coronavirus bi ak na muy lëmbee àdduna bi ci vois donc c'est bien ñëpp teel a wàcc dem ñibbi seen kër yi waaw. mais avant góor yi dañ daan wàcc di jàdd di dem seen kër gel yi wala ñu jëlal benn gel appartement ñuy wàcc foofu noonu di wàccee seen coono parce que des fois seen kër duñ fa am jàmm mais instant yi dañuy wàcc dañuy teel a wàcc nekk seen jabar yi waaw loolu boo gisee góor yi du ko def euh, dañ amul jàmm seen kër yi bu ñu wàccee seen biir kër yi boo xoolee kenn leen may jàmm euh, sa sa sa sa sa alaaji bu wàccee tegaloo ko ndox mu ñëw nga koy xool wala di ko fiire wala di xool portable am bu xalaatee ne bu wàccee fitna moo koy fekk foofu rek day préféré dem feneen foo xamante ne jàmm moo ko fay fu jàmm la fay amee quoi yaa ngi gën a xam gis nga waaw ah, noonu la fa demee quoi. mais am na yenn gel yi tam yoo xam ne jóge wuñu vraiment sa jëkkër wàcc nga xoolee ne facture ndox bi ñëw na wala léeg-léeg nii ñëw na. te mu wàcc nga war ko dindi coono. waaw waaw jigéen ñi moom noonu la ñuy def ñoom seen bëgg-bëgg rek. mais am mais kenn jógewul jigéen léegi moom yaa ma gën a xam. en tout cas sa borom kër bu wàccee. waaw ñun ay photocopie lañ. waaw ñoom ñëpp ay photocopie lañ maa ngi jéegul ci kàddu gi sax mais ñëpp duñu ay photocopie bien vrai que ñëpp yamuñu mais sa borom kër bu wàccee da nga ko war a dalal ah may ko ndox mu naan tegal ko lu sedd yaa ma gën a xam mais mu wàcc rek nga koy fitnaal di ko wan ay facture ndox ak ay courant ci vois. naan ko waa ay chevaux yooyu noonu loolu xelam du daal loolu doy def loolu mooy andi bu wàccee nekk di dem feneen wala muy dem foo xamante ni daal fa la fa lay amee jàmm foofu lay dem. mais yéen góor yi da ngeen bëgg a jigéen de. waaw jigéen moom kenn bañu ko jigéen moom wax dëgg yàlla yaa ma gën a xam kenn bañu ko ndax moom yàllaa ñu sàkk sàkk ko te luy luy mat si ñun luy mat si ñun moom moo koy mottali yaa ngi gis noonu la fa demee jigéen moom mooy loolu moom. luy solution bi euh, sëy yi xam ne instant yi mu ngi yëngu si confinement bi parce que ñu bari tàmmuñu nekk ak seen famille yenn heures yi imagine dix-huit heures ba ba sept heures du matin. heure bi moom gudd na trop mais loolu day gën tax euh, famille ñuy gën a am kii euh, ñuy gën a ñuy gën a jàppoo gën a xam jukko yi gën a xamante seen biir tu vois loolu moom wax dëgg yàlla confinement bi loolu boo xoolee ne dina xaw a arrangé kër yu bëri dinañ dinañ dinañ xamante dinañ nekk ci jàmm gis nga loolu daal wax dëgg yàlla dara nekku ci quoi parce que coronavirus bi moom nuñ ko waxee rek dafa dafa doy waar tu waa waaw noonu la fa demee. merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu wér macha dañ doon waxtaanee thème bu am solo muy xale yu góor yoo xam ne dañuy wàcc ñibbi seen kër ay 18h bu ñu eggee seen jabar yi ñu indi ñu ñibbi si ñu indi coow indi histoire parce que yéen góor yi da ngeen a si. ah mais tamit euh, situation dëkk bi moo ko laaj mais parce que am benn affaire boo xam ne am na tey jii bu fekkee. yow euh, yaa ngi def li la war ak sa jabar tey jii lii bu ñëwee du du changer dara parce que bu fekkee tamit comme si yaa ngi doon def li la war ak sa jabar kon tey heure bi man pour man da ngeen gën a profité ngeen mën a gën a nekk parce que imagine toi 18 heures nga ñëw si sa jabar toog fa ba jusqu'à 7 heures du matin bu fekkee tey yaa ngi doon def li la war ak sa jabar moom du la causer problème pour man. fois boo xam ne jongewul boo xam ne yow am na kenn ku xam ne da nga ci moom soog a ah mais situation oblige la rek parce que imagine toi euh, am nga beneen gel boo xam ne yaa ngi koy dem ko peut-être sa jabar moo wanewul lu tax nga yem ci moom. peut-être gel bi mu ngay def la loo xam tey ji euh, gisoo ko sa ba mais tamit côté boobu jigéen ñi lay laa parce que ñoom tey ji boo amee sa jëkkër mu bàyyi ñu bëri ñëw sëy ak yow war nga am nga droit nekk ak moom di ko toppatoo ba nga xam ne xelam du nekk ci dem feneen am na loo xam ne foog mu am mais tam am na loo xam ne nekkul jour comme da ngay jël sa jëkkër soit ci nga di ko def nangam nangam am na man sa jëkkër mën nga ko laaj mais nekkul moment boo xam sax bu wàccee rek nga ñëw teg tegal ko lu tar yaa ma gën a xam su dul loolu kon day dem uti ji ko feneen wala day dem xooli ji ko feneen man moom loolu jigéen ñi lay blâmer foofu noonu. mais am yoo xam ne boo leen joxoon adunaay ci biir parce que dañoo rëy dañoo bëgg mais góor gu nekk góor nga jigéen kenn bañu ko mais mën nañu rëy bët mais tey jii sa jëkkër booy def li nga boo jaaree fi nga war a jaar ak mu def li nga war a moom jigéen kenn bañu ko doxaan bëri na ci dëkk bi mais tamit dina la teg foo xam ne ji jii yow tu sens doo doo ko sax sentir que ni moom mi ngi nekk def leneen mais lépp rek ci yow miy gérer sa jëkkër la am na noo koy téye moom franchement yow doo dem sa bay sant kenn sa jëkkër mi ngi nekk di wax ak keneen wala daal. yéen célibataire bi moom soo fee ma parce que man euh, sans problème mooy c'est pas daaw ma passé moment bu bëri si kër gi parce que man dama daan xëy jusqu'à 9h30 ba 22h laay sama place peut-être sama vie yëpp ci place sama journée yëpp ci place bi laa ko doon def. mais léegi imagine toi avant 18 heures laay wàcc dem toog mais damay lu jar xuloo naa ko xuloo lu naa ko xuloo damay toog di xuloo rek teg sama di xuloo parce que dama temps bi moo bëri ci man. ba may te man ma toog ak fay bi noonu moo damay dugg fii te génn wax ak kii lu ko jar naa ko histoire ko jar moom moom xam naa ne moom moom daf may arrivé moom. parce que temps laa tàmmul parce que imagine toi ko wàcc 22 heures da nga daan ñëw sonn ree tëdd boo ko tëdd 18 heures ngay toog tamit mooy loolu. waa gis ngeen euh, lii lañ leen indiloon tey seen émission ma ñu nekkoon na Soprim defe naa ni que gis ngeen euh, thème bi mu nekk thème bu am solo ngir yàlla nañ ko jëfee xale yu góor yi bu ñu wàccee rek dem seen kër xamoon ñun tamit ñun xale yu jigéen yi suñu journée nan lañ ko dundee ngalawaay rek nañu am yërmande xam ne des fois nit des fois doo mat donc ñu yaatal xol yi rek yaatal xel yi bu ko defee lépp dina baax booy Médina yi nag tey leen conseil boobu bu baax a baax toog leen seen kër na feebar bi bu daloon seen yaay wala seen papa wala seen mag di ngeen mën a ut beneen solution bu dul di ngeen di toog si affaire lax bu ndaw ngeen bëgg a génn ñu ñëpp bëgg nañ génn mais nañ def lu yoon wax nañ def lu lu gouvernement bi wax bu ko defee ñu aar suñu bopp aar ñu ñu jege aar suñuy dëkkandoo bu ko defee feebar bi gaaw a jug suñu dëkk ndax am na ñoo xam ne instant yi nekk nañ si tiis ndax foo ñu liggéey mun a dund nga la war toog leen seen kër yi reste chez vous merci beaucoup et à seen beneen émission set si ma merci beaucoup